commerçant yi yëngu ci wàllum mbuusum plastique yi te nekk fii ci diwaanu Touba bootu nag ci assise des associations des commerçants et industriels du Sénégal di ñaawlu doxalinu jëwriñ ji ñu dénk wàllu environnement bi ci réewum Sénégal ñoom commerçant yu dal bu baax ci kaw kii di Abdou Karim Sall mi ñu wax ne dafa yebal ay ndaw ñuy wër di nangu seen marchandise doon loo xam ne teguwul ci yoon Baye Cheikh Dieng moom doon wax ci seen kàddu. bu yàggut bi nga xam ne 10 jours moo des ci loi bi ñu mujj voté ci 2020 bi mu entré ci la joxe ndigal ci ne mboolem ku am conteneur ci port bi bu jëm ci wàllu mbuus ma nga koo génnee ci noonu nag ci la commerçant yi defee seen démarche ngir euh, génne ñoom it seen marchandise boobu nga xam ne moo nekk ci port bi waaye ñu gis ne bi nga xamee ne génn nañ ko ba euh, fay ci mboolem alal yu bari ndax avant sax dañ doon fay magasinage bi nga xam ne moo lañ doon fayal seen conteneur yi nekk ci port ak mboolem frais yi nga xam ne ay frais supplémentaires la yoo xam ne euh, décision boobu mu jëloon moo ko waral nga xam ne xaalis bu bari la boo xam ne perte nañ ko non seulement loolu teg na leen ko waaye bi nga xamee ne de dédouane nañ conteneur ba génn ko war koo jaay ñu gis ay nit yoo xam ne ministre euh, de l'environnement Abdou Karim Sall moo leen ni ñuy wër di nanguwaat alal jooju nga xam ne commerçant yi euh, euh, jëlee nañ ko ci port bi dédouane nañ ko ngir ngir ngir saisir ko loolu lañu gis ne injustice la injustice la parce que non seulement commerçant yi demuñ foqati marchandise mi waaye dañ leen a jox ndigal ñu dem ñu dédouané ko en toute légalité ak xaalis bi nga xam ne moom leen ko laaj bañ génne ko ñu jëlaat ko di ko saisir di ko nangu loolu dañuy gis ne foqati alal alal askan wi la foqati alal réew mi la ci jamono joo xam ne yaakaar naa réew mi yitteewul loolu te yaakaar naa jamono ji ñu nekk ci réew mi réew mi yitteewoo na leneen lu wër di nangu alal askan wi war na nga alal askan wi. ñoom commerçant yooyu di sàkku nag ci jëwriñ ji ngir ñu waat leen seen bagaar ñu mën a wéyal seen activité ndax ñu ci bëri ci ñoom fay nañ lépp loo xam ne ni yoon may na leen ko muy seen droit de dédouanement. li ñu bëgg nag mooy sunu xaalis lañ ci def xaalis bi xamul leen dañu koo lebal xamul leen nu ko lijjantee ndax mën nañ koo leb bu ngeen ko nangoo ñun duñu tëral bank ci kaso yi ca boobaa daanaka fitna la ca fitna nag moom moo gën a metti rey nit. fitna moo gën a metti ndax nit ki da dana toll jamono yoo xam ne daanaka li muy dund dootu ko xam dootu lekk ba regg du naan ba suur nekk ci njabootam nga di ko toroxal loolu it metti na li ñu bëgg ngeen dimbali ñu ñu mën a jaay suñu stock yi mu jeex ñoo ngi interpellé président de la moom te mu jox ndigal ñi nga xamante ni ñoom la liggéey muy Abdou Karim Sall dafa am loo xamante ni dafa jaru ci am réew am réew dangaa moom mi nga woote ni nañ dimbalante yërmante ngir dimbali entreprise yi nga xam ne dañoo daanu ngir

kon dimbal loolu kon dafa mel ne kon commerçant yi bokkuñu ci kon dafa mel ne kon ndimbal mi woote kon jëmale ko commerçant yi ba tax ni kon mboolem commerçant kuy jaay ko jënd rek yaa ngi naqaru dogal bi nga xam ne Abdou Karim Sall jël ko ngir teg ci kaw commerçant yi ñoom itam sàkku nañ ci nguurub Sénégal ngir mu xoolaat doxalin wi nga xam ne nii moo ngi koy doxale seen diggante ak ñoom ndax lépp lu jëm ci wàllum bourse plastique gis nañ ne woote waxtaan daf ci amul ci diggante jëwriñ yi ak ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci yëngatu ñun nag laajuñ ne xam ne a yitteel parce kon lépp bépp décision boo xam ne day day jug ngir préserver environnement bi ñun loolu dañ ciy ànd dañ ciy ànd moo tax bu baax la waaye da ngay gis ne nag avant ñu koy jël waroon naa am ay waxtaan yu ñu waroon amal diggante que décision bu mel boo koy jël boo xam ne engagé secteur bu mag ci wàllu économie réew mi jàpp naa boobu ngir ñu mën a trouver ay solution ba kenn du ci mën a gaañu kon comme que dem na nii nag ba voté nañ loi bi ba mu demee noonu ñoo ngi ñaan ñu may ñu délai boo xam ne dinañ ci mën a Euh, suñ marchandise yooyu ñu nangu d' abord ñu jox ñu ñu joxaat ñu ko parce que lu ñu foqate la alalu jàmbur la ba pare ñu may ñu delloo boo xam ne dañu mën a écouler marchandise moomu bu ko defee ñu mën a xoolaat yeneen solution yoo xam ne ay solution yu durable lay mën a doon bu ko defee day mën a nekk njariñ loo xam ne ci Sénégal yëpp lay rek fàttali ne nguuru Sénégal nag fan yi ñu génn ginnaaw bi fi jàngoro coronavirus bi duggee dafa jëkkati woon ay kàddu daal di wax ne teg nañ ci suuf lépp aju nag ci loi bi nga xam ne yëkkati woon nañ ko ngir tere njaayum bus plastique ci biir réewum Sénégal